ñi nga xam ne ñooy ay mbokk ay taalibe ay xarit ay muxaddam ñoom it seen wàllu bopp ñëw nañu ci gën di rafet ñëw ndax ñoom it dañ ñuy mbokk yi am di jàmm yi taalibe yi doom yi ñoom it ci guddi gi rafet nañu seen teewaay lool délégation nga xam ne jóge fii ci Ndakaaru dëkk ci Thiénaba ñoom Mar Faye ak Abd El Hadj Abdoulaye Mbaye El Hadj Mar Faye ak ñi nga xam ne it ñooy waa Thiénaba yëpp ñoom ma kuréel bu di ki nga xam ne moom bokkoon na ci guddi ga ak ñoom Ndiaye ñoom Ndiaye Faye xalifa bi moom ngeen gis moom mu fas yéene waxtaan ak mbokk yi ci guddi gi. ñoom jëm doon ragal yàlla ñoom it ay saxte ñoom ci bàyyi ndam ba ko ñoo xam daal ko place boobu nag sëriñ bi Ahmadu ay saxte bàyyiwoon ñu di ndaw ko daan na fa toog bala moo jëm ca place ba nga xam ne ci la ñuy màggalee guddi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nag suñu jigéen ñi ñoo xam ne ñoom it li nga xam ne noonu la ko góor bu baax bi Ahmadu Ndaw Seck daan defe yàlla ñu ñal tax ci barkeem daan na wax ni jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Sénégal lenn rek laa leen jëm muy li nga xam ne muy jigéen yéen waaye war ngeen jéem a xam it seen ci julli war ngeen jéem a xam it ñu ngeen di jaamoo seen borom te it Sénégal su fa dem xam ni toog ci buntu kër ñoom bokk na ci li nga xam ne tere nañ ko ndax dañ ne boo toogee ci buntu kër lee nga wax loo warul wax moo tax boo demee Sénégal di nga dem ba génn ko gis kenn ku toog ci buntu kër ndax loolu bokk na ci li nga xam ne suñu kilifa bu baax ko Ahmadu Ndaw Seck moom la ñu yare woon ci loolu la ñu nampe moom la ñu xam te it moom la ñu jëm ñu ngi gisee it nit ñu bare trop tabarakalla su nekk doomu aadama jóge na fa keroog ñoo ñooñu ba tey ay ci seen i plus la ñu jël joxaat ko góor gi ñu ko bàyyi maanaam waxee seen gëm seen taalibe ñu ñaanal leen ñooñu ba déwén a jàmm ñu dellu siwaat joxaat ko moo dama di ay faseet moom ngeen di seen
mag ñi nga xam ne itam ñoo nañu teraangay diine ji ñoo ne sant nañu leen nit noo ngi di ndax li ñu nu liggéeyal bu ñu nu ko liggéeyalul woon ba ci jamono ji dootuñu ko am xam-xam duñu ko jox aw fit duñu ko jox xarala duñu ko jox man-man duñu ko jox ndax ñoo ko amuloon ba tey dootuñu ko am bon nag woo nañu leen ci siraatal mustaqima tubaarkalla woote ba metti na lool te kii ndax yéen yàlla da leen caa teg yéen boo xam ne moo leen ko tegal bopp waaye mooy ñoom seen bopp teg teg tegaluñu ko seen bopp seen bopp jihaadu fi sabilillah loolu cër la boo xam ne yàllaa leen ko tànnal ñu yoon ko bu baax ña ci seen moor nekk ñëpp nangu caa ànd ak ñoom ndigal la di lenn ba mu sóokam ci géeju soow gi ba mu sóobee tànkam ci géeju soow gi wax na ni jiyaat jeena sama loxo la ko yàlla jeexale jihaat yonent bi tàmbali na géejug penku ba géejug soow adduna nag xeex bi si jóg xeex bokkul ak jihaat jihaat moom jéena sëriñ bu gàddoo si gànnaay mu ni sëriñ bu gàddoo si gànnaay ginnaaw jiyaat ji daw leen ko seytaane nax na ko sànni gànnaay ga daw ndax jiyaat yonent bi tàmbali na géejug penku ba dem na ci géejug soow kon nag sama bàyyi daana wax naa sew xaamal day jël na damal doomi soxna yi bon nag jaamu leen yemu yàlla rek moom la leen sant waaye sew xaamal jël na ndam li de ba mu ca jógee nga wàcc gi si wax ko ni muy ñëpp dañ ma déglu àdduna mu am njiim jib te di njiima njiim njiimum yàlla dinaa dem foqi ko door a dem loolu moo waxoon dara dara dara dindiwu ko politique lu rëy rëy rëy rëy rëy balaa làq téeméeraat tilli tilli yi laf la fee ko ci geer
bismillahi rrahmani rrahim اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
te yonent bi kat noonu na waman yarta biddi minkum an diinihi fa sawfa yaati laahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuunahu azillatin alal mu'miniina a'izzatin mu ne ko ah yonent yàlla Muhammad ñi nga xëy amoon nga leen day ñu si bari dem na ñu mu ne ah loolu amul solo foofu waaye bàyyee fukk jàpp fa fu téeméer bàyyee junni jàpp fa fu junni bàyyee téeméeri junni jàpp fa loolu dara dindiwu ko ba léegi yaa ngi jëf yéen bokk si yéen sëñ bi fas yéene teeru ji délégation ba fa teewal chef d' état président Abdou Diouf muy François Bopp ministre de la jeunesse sport André Sonko biir liggéey yi ci Sénégal ak El Hadji Malick Ba gouverneur région bu Sine bu Thiès léegi nag délégation ba moom Paa Bopp moom la ñu gis noonu André Sonko ak gouverneur El Hadji Malick Ba ak préfet yi ak ñi nga xam ne it ay sous-préfet yi setal yooyu nag yàgg na fi jóg ndaxte ñoom dañu jiyaar mooy suñu baay bu baax ba Alaaji Ahmed Ndaak Seck ndax loolu la naan def moo Ahmed Aïssa Seck noonu mu ko defee noonu la ko kilifaam bu baax ba daan defe daan ñëw ci place bi wala mu daan génn ndax ñoom dañu soq ay bal maanaam ku dugg ci ci diine bi nga xam ne mooy jiyaar dugg ci ci diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy kenn ba fekk
monsieur le ministre Serigne baa ngi lay xamal ne dëkk bii nga ñëw tey nee na naa la wax dëkk bi ban la wax la dëkk bi nan la wax la ñi ko doon yor nañu mel wax la moom mi ko yàlla teg ci loxoom ni mu ko yore dëkk bi ñu ngi ko sanc 1882 ci leen sanc dëkk bi war a nekk léegi téeméeri at ak ñaari at benn jikko bi li mu bëgg la du ko bàyyi mukk benn bi li mu bañ la du ko nangu mukk li mu bëgg mooy lan lépp lu yàlla santaane rek dëkk baa ngi ci lu yàlla tere rek dëkk bi bàyyi na ko santaane yooyu ñett ci jiitu mooy liggéey jaamu yàlla jàng alxuraan jubbanti jubale jéggale jëllale joxe jaamu yàlla loolu mooy bëgg-bëggi dëkk bi lan la dëkk bi bañ téeméeri at yooyu ak ñaar yii ma lay bëgg a limal yàlla mu baax mi sàmm na dëkk bi ba lenn ma su ci am penc mi ngeen toog tey mosu la gis pooj bi jigéen benn jigéen mosu fee pàkkar ci fii mosu am mbërëm lamb mosu fee bàkk fii kenn mosu fee naan sàngara fii kenn mosu fee tux fii xaj ma fee baw fii doom yi ñu tegoon lee ma su fee juddu moo tax noonu la dëkk bi selle ñu ko doon yor nu ñu mel mooy yaari jikko lañ doon yor lu yàlla bëgg ñu bëgg ko loolu mu noonu la dëkk bi mel Serigne Thiénaba bii ngeen fekk maamam moo sañ ci dëkk bi 1882 yor ko ba 1899 mu jóge fi bàyyam yor ko ba 1946 mu bàyyi ko fi magam yor ko ba 1973 mu bàyyi ko fi mu yor ko ba suñu jon yàlla tey moom bii nag ku yàlla may alquran la def na ko ci këyit lépp tëgeesuwu ku yàlla may sëq la benn attetiwu ku yàlla may tawxiid la ku wóolu boromam la ku yàlla may wóolu yàlla la ku ko wóolu la ku yàlla yaatal dënnam la boromam muñ la moo tax mu waxoon ma ne su gaa yi ñëwee bu leen ñaan dara bu leen sawat dara ku leen di jàkk ak ñaari bët soo ko dee geesu ma danga koy rusloo wan bu ngeen dellu fi ngeen di jaar noonu daal bëgg nu mu ñuul nag lillahi wa rasulihi waaw loolu daal nag moom lu nu waxa di waxa di wax waaw fa tabarakallahu nu ngi leen di ñaan su ngeen delloo ci président de la république ngeen di ko njaboot gi fi nekk njabootu yàlla lañu lépp luy seen warugar xam nañu ko ñu ngi koy def lépp luy seen wàll xam nañu ko suñ ca jotee sant suñ ca jotul di muñ say xalaat loolu ngeen fi fekk yéen taalibe yi sëriñ bi yoon na ma ci yéen ñeenti baat na bala ngeen a sàmm seen tariixa na ngeen sàmm seen tariixa waxtu woo jëlee sa tariixa neen def ko muy diine te sàmm looy tariixa di nga réer réer ñu la topp tariixa mooy sër bi tariixa mooy ñambaas bi ñambaas balaa baax day niroog sër ba ñëw kat ba mën a ñaw waaye sër ba weex sàll nga ñambaas sër lu ñuul kuk ñëw ba ni faj teppi koo ko gën yor sa sërum neen loolu li muy bon bon moo tax ne nag lem sër bi teg fële war doo ñambaasu neen ndax ñambaas jotul mag mooy bëgg yow sa tariixa rek muy sa diine te yoon ci tariixa mu ne bala ngeen a nekkati taalibe na ngeen nekk jullit waxtu woo bëggee nekk taalibe te nekkuloo jullit da nga sonn konoon di nga topp ndax jullit yàlla dig na leen ñaar yoo xam ne yépp dana am yàlla nee na fa ilaahi istatu wali rasulihi wali na man yàlla maa moom tedd nga ak yonte yàlla muhammad ak jullit ñi kon nag ku yàlla teral dimbali la koo topp na pal waaye ku génn ci teraangay yàlla génn ci ndimbalam koo topp da nga fitnaal sa bopp fitnaal ko am na lu ñuy dégg amul solo waaye daanu daanu ci tontu tuuti muy Samba Sadio dañu wax ne ñu doon xeex Samba Sadio amuñu ndam waaye ka ko wax waxul dëgg xamul luy ndamul diine ma ne kooku xamul luy ndamul diine ndamul diine duy million duy étage duy building du mbooloo du alal ndax su fekkoon loolu mooy ndamul diine kon ndam laa nga Amérique wala mu nekk Russie ñu ëpp doole ci réew mi ñu xam-xam waaye amuñu ndamul diine luy ndamul diine mooy sax ci sunna teg ci sa tànk doo ko teggi mukk adduna du la ko teggiloo alal du la ko teggiloo jigéen du la ko teggiloo daraja du la ko teggiloo mbooloo du la ko teggiloo waaye soo jiitee nit ñi dem ba gëlëm bu la neexee naan ba mandi bu la neexee def leneen la la neex ba sa xel génn ci yow wala tey doonub jàmbur ñun nag ay jàmbur lañu duñu xuloo duñu xeex duñu tooñ duñu xaste gënañu nag ko ñu baal suñu diine ji ndax ku ko fi bàyyul it bàyyi nga fi lu gën lu gën lu gën a sell la nga téye bokk yi dafa xaw a guddi te kilifa yi waxtaan guñu sëriñ bi dina waxtaan ak yéen seen wàllu yàlla loolu wàlla ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi lay nuyu ci turi président de la république Abdou Diouf nuyu bu tedd ci bu sell tey man ak délégation bi fi ñëw ministre de la fonction publique André Sonko mu ngi fi gouverneur de la région de Thiès mu ngi fi vice-président de l'Assemblée nationale Mamadou Bathily mu ngi fi ak Galonguer mu ngi fi député préfet Thiès ak sous-préfet Thiénaba ak chef de service région Thiès ñoom ñëpp ñu ngi fi ñëw taxaw tey ci turi président de la République pour nuyu la président de la République nag def ñu yónni tey ñu kontaan ci loolu et tiit ci loolu itam kontaan parce que bu la kilifa bu mel ni président yónnee tànn la yónni la dañ ci war a bëgg waxatuma la mu yónni la fii ci Thiénaba ci xaritam ñu gën cee kontaan mais luñ ci kontaan a kontaan dañu xaw a tiit parce que bu ñaari fa di wax yow ndaw ñu yónni la ne demal waxal ma lii war nga tiit te wax bi nag bu ñaawee man la bu rafetul man la bu ma ko waxee ni ko président de la république buggewul man la boo leen ko déggee neneen kam te rafetul rek ngeen ne xam ne ngeen xam ne man maa mutul ci liñ ma yónni moo tax sëriñ bi maa ngi laa baalu ax ci li may wax fi ci turi président de la république mais fii ci Thiénaba ñu gëm yàlla la ngeen yàlla baax na dina ma dimbali ci li may wax ba su tey ni ko taatise waxee bés bu rëy la rëy ci Thiénaba rëy ci biir Sénégal mais rëy tam ci biir àdduna si yépp parce que ci guddi gi dañoo fàttaliku ci du yonante Mahomet loolu lu rëy la parce que ku seet bés ba ma juddu ca Arabia ba fu ñu nekk tey ñu xam ne diine l'islam fu mu jógee ba tey dem na Afrique du Nord dem na Europe dem na Asie ba ñëw fii ci Sénégal loolu ku gis ni mu mel léegi xam ne diine bu am doole la ci réew mi te loolu yonent bi moo ko indi saxal ko fii ñun ñu di ko continuer di ko saxal ku ko seetlu bu baax itam di nga gis ne réew yi mu dem fépp ba diine sax fa ba nit yi di doxal diine am na lu suppale ko ci réew ba nit yi dañu gën a baax nit yi dañoo gën a jàmm yàlla nit yi dañoo gën a jàpp liggéey kooku tam bés bi bu ñu toogee ba seet dinañ gis ne diine l'islam def na lu bare ci àdduna si ku ko seet tam ci ku nekk am na lu mu suppale ci sa biir li ko tàll si sa waxee fii ci Thiénaba lu diine wax moom la ñoo def lu diine waxul kenn du ko def te mbindeef yàlla boo gis buy topp diine ni ko diine buggee dina nekk nit ku baax dina nekk nit ku jub dina nekk nit ku bëgg a moromam dina tax ba jàmm am ci biir àdduna bésu tey donc rey na te loolu yëpp fii ca cenn ba gis nañ ko fii bëgg nañu diine xam nañ diine gëm nañ diine te lépp lu diine santaane fii ci kër gi Thiénaba ku fi xam ku dugg ci kër gi di nga ko ci gis bëgg ngeen diine te yéen a ngi dax ba ñu xamul woon diine gën koo xam sëriñ bi gis nañ li nga def ca ceena ba kajoor gis nañ li nga def ca ceena ba gosaar man mi dëkk mbuur gis naa fa lu fa sa rakk Ousmane Seck di def donc loolu ku ko gis war na ko wax fii te loolu yëpp président de la république Abdou Diouf gis na ko yéen tam liggéeykat ngeen sëriñ bi toggaloo sa kër rek fépp fuy liggéey yaa nga ca parce que xam nga ne liggéey ni ko diine bi waxee day tax ba réew mi naat te lépp luy tax benn réew mi naat yaa ngi ci mujjewloo ci loolu moo tax sëriñ bi ku gis lii seede ko mooy président Abdou Diouf te def ma wax ne bu ma ñëwee fii ma fàttali loolu moo waral mu yónni ñu parce que lépp loo xam ne lu day dëgëral diine lépp looy xam ne tax réew mi naat fu ko président gis fu mu ko dégg dana fa taxaw bu fa taxawal dina fa yooni ndaw moo tax ñu ñëw fi tey ñaareel bi président sa xarit la président sa mbokk la te man miy ndaw xam naa fi nga teg président yow it sëriñ bi xam nga fi la président Abdou Diouf teg kooku duma ci sore yàlla mën na sedd loolu mais li ma bëgg a wax moo di lu jamaano ji naxari naxari mu ñàkk taw am même ñu sonn Sénégal yaakaar na ne yàlla dina leen dimbali parce que ñu gëm yàlla lañu mais yow sëriñ bi da nga ne yaakaar nga ne yàlla mi baax dinañu dimbali
ñi nga xam ni ñooy ay mbokk ay taalibe ay xarit ay muxaddam ñoom it seen wàllu bopp ñëw nañu am jom ni ñu amee jom ci lislaam bi loolu nga ñaay la loolu yi nga ñaay nag nee bu nu seetloo ñu jëkk ña dana mel ndax suñu waajur am ñu ko woon nee dafa mas a am gouverneur bu mas a gane si fii baayam ngan nga rëy na lool muy gërëm góor gu mag di ko ñaanloo ba ko góor gu mag di tontu ni ko nun noo leen war a gërëm noo ngi leen di ñaanal ndax ñaan ñëpp a ko bokk noo ngi leen di ñaanal it waaye noo ngi leen di gërëm it ndax seen jamono ni nga xam ni yàlla may nañu ko ci sunu bàyyi yi nga xam ne ñoonu bàyyi ak lislaam bii man naa ni amuñu ko woon ndax ñoom bu ñu masaan dañoo bay bëgg a julli da leen di të suñu xamee ni bokk nañu dañoo bëgg a julli ñu njóor leen kutal yi suñu bëggalal malaan wasifa ñu njóor leen ba dañuy def ñu ñaari xaaj ñii di julli mbaa ñuy wasifa xaaj benn bi di xeex di leen garde di leen garde bu ñu noppee xaaj ba doon xeex dikk di julli mbaa ñuy wasifa xaaj bi doon julli xaaj bi doon wasifa dellu di leen garde bon nag nun lu nu neex def ci sunu diine gàllankooru leen nu defu leen dara mu ni jumaa ji fi nekk baayam amu ko woon taax yi nu dëkke nee na mu ni baayam ay wax ni baayam amu ko woon oto yi nuy doxe baayam amu ko woon ak mag ñi nga xam ne ñoo tolloo woon jamono ci seen jamono ja nee na bon nag sëriñ baa ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ndax li ngeen nu defal gis nañu ko suñu bët dara ump nu ci doxu leen suñu digganteeg suñu diine doxu leen suñu digganteeg suñu njaboot doxu leen suñu digganteeg dem tool te suñu bàyyi yooyee jamono yi ñu dajeeloon jënn jigéen ju génn dem ñu daal di lay fetal daal di fab loo amoon jënn góor gu jóg di dem ñu daal lay fetal fab loo amoon ba tax na bu ñu daa ànd bu ñu daa dem mbooloo la ñuy doon gàddu seeni fetal ñu ànd ku leen seen xam ne ñee soo ja fetalee soo ja reyee kenn ne ja des rey la gannaaw léemaay yàlla noonu la ñu daa def waaye yéen seen jamono jàmmal ngeen nu doxu leen sunu diggante sunu diine am na nuy jumaa doxu leen sunu diggante ak taax yi nu dëkke wata yi nuy war te sunu bàyya ay fas lañu daan war waaye seen xel nekkul woon ci am oto bon nag loolu sàmmeef goo xam ne yàlla teg na ko ci loxoy kay sàmme boole ko dogalu boppam nag ak càmmeefu boppam ba lii lépp mën a am bon nag googu càmmeef jig na leen waaye nu it jig nanu sëriñ baa ngi leen di jaajëfal te di leen ñaanal te di leen xamal ne taxawu ngeen nu ci saayir taxawu ngeen nu ci baatin ndax yéen ñii fi daje kenn ku mu ci doon sa bureau la fa di liggéey bari na lool waaye ba bisu dikkee ngeen laf kayit yëpp dëdd seen kër yu rafet ya nekk ci àll bi ci dawal ba tey fënd bi di leen faam ba ngeen ñëw fii taxawa taxawaleen sunu diine bon nag loolu ak cant mënu ko féete kaw waaye nu itam soo àndeek àtte bi yàlla waxtu wunu toogee ci sunu place yi ñaanukaay ndéem soob na yàlla bu nu ñaanalee ñaanal yàlla julli seen yàlla Muhammad ñaanal yonent bi ñaanal sunuy wayjur yéen lañu cay teg yéen lañu cay teg de jàmmal ngeen nee na baayam dafa wax ne ñetti yoon ku ko saxoo yoonu àjjanaa ko ñeenteel ñetti yoon yooye nag dégeen nu koo yaatalal pakk felu nu ca dégg jëmu nu ca yetti yoon yi yumu yoonu tool yi yoonu jàngu ba yoonu jàkka ja yooyu yetti yoon yooyu àjjanaa ko ñeenteel bon nag li ngeen nu defal bu nu silma xawoon it suñu xol di janoog moom say suñu xel a ngi janoog moom suñuy bët a ngi janoog moom noo ngi leen di ñaanal di ñaanal président bi yal na ko yàlla xaar aar leen yéen ñi ko jàppale yal na leen yàlla xaar aar l'islam bi su ko defee day jàmm dana yaatu l'islam dana yaatu jàmm dana am ne suñu dégloo adduna ji xew-xew yi ciy am xajul fenn te fa mu nekk it yàllaa ko ba indi waaye xaju fa bon xew yo xew yooyee yal nañu ump
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين